duy dema leen mbokk auditeurs yi da ma jukki leen li gën a fees ci ëtulkaay talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bokk na li ci gën a fees li yéene kaay xëy tey ji nag dellusiwaat ci démission juge Ibrahima Diène bu magistrature foofee ci li ñu jot a dégg nag ralentissé li nga xam ni nag moom mooy mbir mi ci biir magistrature ubbil l'observateur yéene moom it xëy ak magistrat bi démissionné nag ne nag cité nañ ko ci ab extrait lettre

supérieur magistrature bi di CSM momi nak instant de décide bi mu jëm ci bir carrière juge bi nga xam tane mom lañ wax ak yeneen i procureur ci bir yene kaay bi waye nak buñu sukkandiko nak ci yeneen yene kaay li ñu bind nak ne nak un jour la ci bir nga xam tane mom moom di manque indépendance ci bir justice bi manam acte ba ak ci jëfin ba ci pire pouvoir bi nak waye nak défi la ak ci bir autorité bi ño xam tane nak nag ñoom it nag affection la ak punitif bo xam tane nak lool la yene kaay bi wax ak leneen nak yeneen xam tane xeyna ko fessel nak waye nak yamul fofu rax ci doli nak né nañ nag bi nak nag fois si nag régime Macky Sall bi nak ñom ñoy consulé illustré manam ñom lañ joxoñ baramu baaraamu tuuma ci bir nak li nga xamné bo modi bir magistrature bobu ak démission Ibrahima Diène bi bi ci bir CSM waye nak kité na définitivement magistrature bi dotul dootul wat ci bir lettre ba lool la xamle réquisitoire magistrat bi lool la ko ko djé xëy fessalé ci bir xëtam bu ñëk ne message la bo xamné te ni nag juge dem xëy nako fessalé fësale ay li xamné te xamal ko ñi xamné ñom te ne ay compatriote ma baye nak ci bir état justice bi lo xamné te ne fësal crise précédente ci bir li xamné xam te ne yàq perte crédibilité am ci biir autorité bi Walf Quotidien moom it dellusiwaat ci jaar-jaaram ci biir magistrature bi cour d'appel bu Dakar ci xam moom mooy fësal li xam lay dénoncé di ko bañ ci biir gestion bi di dëkk bi di doxee crise morale la boo xam am na jamono ji waaye nag parquet cour d'appel bi nag ñoom it nag bëggoon nañ def appel nag ci biir li nga xam moom moo di avocat général bi di Ibrahima Amadou Deme ci biir nag xam ñooy cour bi ak procureur général Lassana Diaby ci biir yéenekaay bi enquête yéenekaay Sud Quotidien la Témoin yéenekaay ak Le Quotidien la tribune ñoom ñëpp xëy nag dellusiwaat ci juge bi nga xam te ne dem moom it ba nga xam te ne dem na moom it magistrature bi wan leen ginnaaw ancien maire de Dakar bi nag leneen la ab tiis bi nga xam te ne di Mamadou Diop ancien Dakar bi nga xam te amoon na ci lu tollook juróom-ñetti xam te ni ne fii dum dëm ci biir ndakaaru la ko defoona liggéeyal ndakaaru Mamadou Diop génn na àdduna le quotidien moo wax li nu mel la république perd un de ses meilleurs serviteurs le quotidien yéene kaay moom it dellusiwaat ci biir mbir boobee le tiis boobu xam te dal na Sénégal la tribune yéene kaay ne Dakar perd maire honorable laas yéene kaay dellusiwaat ci tegaat foofu baaraamam di ko bës enquête yéene kaay moom it moo di vrai magistrat ci biir ville champion de la décentralisation ministre député intellectuel politique professeur ba ci sax ñi nga xam tane ñoom ñoo ancien maire bu Yoff ñoom it commune d'arrondissement bu capitale Mamadou Diop ñoom it dinañ ko téwé bu nga xam tane nak naka dinañ ko jébbala boroomam tay ci talata ji enquête yene kay mo wax li li mel le la solo yene kay moom it xëy ñëwaat ci leneen ci biiru gouvernement bi la satisfaction juroom benn at de revendication ci syndicat des médecins ci biir xëlépp ci biir tournement bu xam tane ci biir mom la mbir bi am jëmale ci biir xëccoo bi dox ci digënté ñi nga xam tane ñom ñoo di syndicat yooyu ak nguur gi quotidien yéene kaay moom it ne gouvernement bi dellusiwaat na amal na ab tontu nekk ci biir yaamari maanaam li ci biir mbir moomu waaye naka ay équipement prélèvement âge yoo xam te ni ba ci biir coowal retraité naka dana egg 65 ans loolu la Le Soleil yéene kaay xëy ko xóotal ko ci biir mbir googu naka patient sénégalais maanaam naka ñu ngi poussé benn ouf de soulagement maanaam naka mën no e Sud dina dellu si waat ci biir grève boobee nag waa SAEMS e am nañ ab déggoo ñi nga xam dox na seen diggante ak nguur gi ba ñi nga xam te ñoom ñoo di malaat yi dootuñ wax dala la reprise du travail dellu waat ci bureau jëlaata sereng ya piqûre ya ak lancet ya daal di fajaat malaat yi day daal di doyaat daal di dellu si waat waaye nag ba ma tukkee nag daal di dem Égypte nag foofee élection présidentielle élection boo xam ne moom moo di président bi Abdel Fattah Al Sisi moom it nag présenté wu na ci ñaareel bi yoon waaye nag amul nag ki nga xam te mooy adversaire bu ko mën a téye tere yoon bi muy Moussa Moustapha moom it nag kenn considéré ko comme opposant bu am doole waaye bu ngeen ubbee seen nopp ngeen déglooti ba ma waxati ngeen déggati mbir mi doy waar la nag kii ab oustaz xaw ma sax ab oustaz saa war a wax wala ab oustaz ci jàngay foofee ca Touba nekk enseignant foofee ca Kër Madiabel département bu Nioro waaye nag jamono ji mag ca gendarmerie bu Nioro digital la am juróom-ñetti at moom lañ accusé ne dafa violé ab ñetti mineur nag kenn ki am sept ans kenn ki am neuf am onze ans laas yéene wax li ni ne nag ginnaaw bañ ko dénoncé nag waaye nag jamono ji dina ko wexxat nag ndax ma ngi ca brigade gendarmerie bu Nioro enquête bay wéy nag dina ko wexxat ndax oustaz dëgg du def yi ni mel mbir maa ko day na waar daw naa wasalaam